xam nga xam nga xam nga politique bi dafa am un c'est un homme politique a été moom lañu ñu accusé mm-hmm. n'est-ce moom la ñu accusé moom la citoyen séné citoyen sénégalais n'importe lequel quand même n'est-ce pas moom la mm-hmm. mu jël dossier bi jox ko ramification politique pour def le pro le procès de l'opinion pour jël procès bi passé ko au niveau de l'opinion maintenant opinion bi gis-gis bi ñu ci am mun na bañ a mun na bañ a bokk ak truc parce que doyen moo wax léegi au niveau du tribunal on juge des faits maintenant ay preuve la ñu soxla xam nga kuy andi preuve c'est pas Ousmane Sonko. c'est Adji Sarr d'apporter les preuves. moom moo moom moo war a andi ay preuves pour wane ni dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko sàkku te d'accord ci. Mm-hmm. du dëgg c'est pas Ousmane Sonko d'apporter des preuves que moom moo violé parce que ku violé moom accusé wul c'est Adji Sarr l'accusatrice. Mm. mais Ousmane Sonko homme politique. situation bi ñëw na mu jox dossier bi une ramification politique ba dugal ñu ci ñun ñu dugg ci ñëpp ba jox dossier bi par rapport à l'opinion laa wax nag. Mhm. parce que gis nga nag la position de l'opinion les aspects politiques ci buntu tribunal lay yem parce que tribunal fi mu ne nii ay faits lay juger mhm. parce que tribunal avocat peut dina ko wax gendarmerie ay indices la ñuy joxe juge d'instruction day day day day day day day instruire à charge mhm. ou bien à décharge tey dafa instruire à charge mu dem nag au niveau du tribunal ñu war a ut ay preuves okay. de la culpabilité ou bien de la non culpabilité mm-hmm. de de de ki ñu accusé ah. maintenant tey nag puisque yàlla def na parti yëpp amoon na ay moment yoo xamante ne ku ci ne ci ñaari parti yi ku ci ne danga nga bëggoon turbe da nga bëggoon procès bi jeex mm-hmm. sénégalais yi yëpp gis nga sànq ba may ñëw j'ai entendu des mamans diir dañoo dañoo sonn ci mbir bi nañ ko vidé benn yoon mu jeex parce que mënatuñu dem jaayi seen gerte caaf yi sama koñ gisatoo benn boutique bu ubbeeku parce que les gens ont peur pour dëkk bi yëngu mm. mais suñ ko vidé dëkk bi dootul yëngu waaw ah, vous espérez ça dépend. non suñ ko vidé. Mhm. suñ ko vidé dëkk bi dootul yëngu maanaam su parce que pourquoi avoir peur tribunal biirama mun na taxaw ne Ousmane Sonko dafa dañ ko libéré par le bénéfice du doute. waaw ah, mun na nekk. kon lu nit ñi di tiit su nekkee deful dara lu muy tiit pourquoi avoir peur. Mhm. si aujourd'hui man dama jàpp ni su nekkee deful dara ak li ma doon wax le dossier est vide mhm. coow lu bari lii lépp mu ñu ne. ñun nag li ñu jàpp mooy pour la tranquillité de not nation ah que juge dossier bi dem na biir tribunal hmm. l' affaire sera jugée dëgg dinañ xam fu mu féete su nekkee dëgg bi ci Ousmane Sonko la féete yoon dina wax ni dëgg bi ci yiw tey nag su koy yoon di wax ci ay éléments la koy teg su nekkee dëgg féet ci Adji Sarr la féete yoon dina ne dëkk bi ci Adji Sarr la féete te su koy wax ci ay éléments la nekk parce que réew mi nag fi mu ne nii euh, soxna Maria wallahi coow li bari na trop te on a autre chose à eh, faire dañ ciy bàkkaarloo nit ñi sax ku ca nekk nga cay wax loo xam ne moom da ngay la ci ñun ñëpp ñun ñëpp liñ ciy wax yëpp dara wóoruñu ci maintenant nag fa mbaxane doonee benn fa lay leere fa mbaxane doonee benn fa lay leere et on a un juge boo xamante ni par rapport à certaines situations toppul texte yi courtoisie moo tax mu yëkkati kàddu jox ko les avocats de Ousmane Sonko mm. na ko bañ a def su toppoon texte yi mais par courtoisie mu yëkkati kàddu jox leen ba mu yëkkatee kàddu jox leen gars yi jël ay parole parce que aussi on ne va pas au projet au procès pour charger quelqu'un dañuy dem procès pour setal nit ñu procès pour charger nit dañuy dem procès pour setal nit parce que pour man loolu la procès di jëriñ parce que tuumaal nañ ko dañuy dem procès pour jëm koo setal su nekkee nag set na yoon bàyyi ko su nekkee sotul mu il sera sur les liens de détention ok et euh... pour moi hmm. c'est lui qui a intérêt vu sa système marial moom moo intérêt te wax na ko wax na ko ci moom man maa am intérêt pour mu leer ok doyen yaa ngi ko